bu baax mandat wu ñi bokkoon ci comité sénégalais des droits de l'homme bi jeexoon na ci atub 2011 fukki at ak ñaar ginnaaw gi ñu taxawal comité bu yees niki tey jii. tabb gi ñu ko tabboon ci bopp bi le comité nag yëkkati woon na coow lu bari bari ndax moom rek mooy homme politique bu njëkk nekk ci bopp bi le daluwaay ndax lu ko jiitu ñoo xam ne dañoo sori woon langue politique bi ñoo ko daan jiite maître Pape Sène la ñu tabaat. président bu yees bi bëgg naa fexe ba Sénégal delluwaat statut A. li nga xam ne dañ ko tudde ñun un défi majeur mooy lan fexe ba delluwaat ci statut A boobu loolu nag boo ko bëggee dafa am loo war a def. Euh, da nga war a def ay action danga nga war a jël ay réformes loolu ñu ngi ci ànd ak suñu ay partenaires mais surtout ànd ci ak gouvernement du Sénégal moo tax tey fi ma wax ak yow am nañ benn avant projet de loi boo xam ne nii defar nañ ko boo xam ne nii jàpp nañ ne tey jël na en compte tous li nga xam ne le principe de Paris mu ngi koy wax ci nan la institution nationale des droits de l'homme war a nekk. jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon moom nag dogu na ci def lépp lu mu mën ngir fexe ba bi ñu dal di koy adopté ngir ñu gën a ñoŋal askanu Sénégal. avant projet de loi boobu nga xamante ni gouvernement bi jël nañ ko ba dugal ko ci circuit d'adoption des lois te du yàgg sax incha allah ah, projet de loi boobu dinañ ko adopté. bile comité ñaar fukki membre ak juróom-ñeent ñoo ciy nekk jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon moo leen di tabb jaarale ko ci ab arrêté ginnaaw bi nga xam ne daluwaay yi ñoo ko koy dal di xelal waaye njiit li moom décret présidentiel moo koy tabb.